ñaareelu bi ñàkk bakkanam ci manifestation yi amoon niki aljuma bi weesu ci ndakaaru ab bal lañu ko dóor ci biir bi mu dëkk ginnaaw raay ca quartier Enda Modou fukki at ñett wuteeg loolu lu ñu bari jàpp moo Gueye nekkul woon marchand ambulant ca Colobane moom ci biir centre commercial nekk ca marché Waranka bu ginnaaw raay la doon liggéeyee boutique gu prêt bi moo ko yoroon Modou ay waajuram dañoo dëddu sëñ bii nag moom moo ko yor fii ci ndakaaru mu ñuy xamal ne moo duggee daan doole rek moo ko taxoon a jóg. gis nga lii ay bagage yu des la woon man ko comme que demee na noonu manifestation yi ñiy manifester dañuy soxla lii ñii dañ koy takk seen bopp ñii dañ koy takk seen loxo li si des demal nga jaay ko ndax Coupe d'Afrique desaat na quatre deux ans si kanam. perte nañ ba pare mais dañ ni ko demal loo ko dégagé ndax commerçant moo demee noonu foofu nag mu demoon dafa demoon pour daani fa dooleem. am na yu des ci saak bi ak ay moyen moyen yaa ngi nii mën naa la woon tamit moyen yi. muy dikk tamit ci ni nga xamee ne noonee la faatoo. bi mu jaaye bay waaj a jeexal si la gisanteeg magam ni day ñibbi moom magam magam ni ko waa baax na kon nan daw jëkkante teer bi ndax benn teer bi dégg naa bu jàllee beneen teer du ñëwaat teer bi day arrêté ndax gis naa gars noo bëggoon songi teer bi si lay doyee pour jëli teer bi ki ko dóor bal bi yaa ngi may déglu ku ko jege dóor ko bi fëll. si digg ginnaaw bi. mer ba futt ci kaw woy takk der yi tailleur bi moom mu ngi ñaawlu ni ñu doxalee ci yooyu les manifestations. ci koo xam ne manifesté wul même su doon manifester sax waruñu ko jël bal di ko dóor nañ arrêté nit ñi jël bal di leen dóor mel na ko yor ay picc. des fois ñu dóor ñu dóor ko dóor yoo xam ne jaaduwul loolu journaliste ku ñu jàppoon noonu xale bu jigéen boobu noonu ñu jàppoon noonu dóor ko ba bëdi yàqu. journaliste baa ngi nii ñu jàpp ko taxaw di ko mbécc ah loolu noonu rafetul quoi ñoom dañoo yàq seen image. am lu ko metti loolu ci ñàkk gi mu ñàkk xaritam moom nag li mu jàpp ci moom rek mooy ko amoon diine la. jullit àqan nit ku baax man li ma ëppal solo rek ci doomu aadama bi en tant que jullit bi mu nekkoon comme fi ñu nekk nii centre commercial amul juma amul juma mais moo Gueye moo nekkoon sama réveil moo nekkoon sama heure noddu su ma toogee sama machine fee fii lay toog fi lay seetaanee tele mais lu mat si neex-neex lu ñu nekk-nekk ci programme. Euh, waxtu julli jotee cinq minutes avant day jóg man su mu gisee mu jóg rek damay xam ne waxtu bi jot na. xarit jege ñaale ak ñi muy liggéeyal ñaawlu nañu bu baax a baax faat gi ñu ko faat li ñuy sàkk mooy yoon def liggéeyam doxub ñaxtu bu ajuma ji nag fasaloon nañ ko lool ci réseau sociaux yi waaye kenn xamul woon ana kan moo ko dal di sookee yile manifestation nag lu ci ëpp dañu koy tere ci réew mi seen Synpics CJRS association bi ëmb soxna yi nekk ci média wu Sénégal ñoom ñee ñëpp ñaawla woon nañ bu baax a baax fitna yi nga xam ne policiers yi tegoon nañu ko ci lu mu gën a néew juróomi journaliste